man El Hadj laa tudd secrétaire administratif euh, section sous section Fatick waaw au niveau au niveau du district de Fatick. Euh, bon grève bi moom ñun ñun def nañ ko mais gën a gën lu ñu parce que dañoo dem ba sës parce que état bi on a signé avec ak ñoom benn benn protocole d' accord. ah fin mars bi ba léegi nii léegi nag protocole d'accord bi nag mise en œuvre yi moo des looloo tax boobu ba léegi nag ñuy xaar euh, parce que ñoom bi ñu signé un protocole d'accord bi immédiatement dañu arrêté pour que ñoom ñu mettre ko en œuvre mais depuis boobu ba léegi nag euh, euh, mise en œuvre bi dafa taxaw li li ñu doon xaar yëpp ñëwul looloo tax ñu continuer def def grève bi. grève bi tey la suñu quatrième plan d'action. donc ce qui veut dire que donc ñun euh, grève nañu au mois de te ñu ngi si novembre grève nañ euh, septembre grève nañ octobre donc ñu ngi si quatrième plan d' action bi ak présentement nii. bon xam nga ñun euh, syndicat bi ñu sommes au niveau national donc le est le niveau national bi nga xam te ne moo fi nekk moom moom moo moom moo coiffé toutes les sections sous sections des sections des des régions moom moo defaroon préavis de grève am déposé ko au niveau ministère yëpp. def nañ formalité administrative yi nga xam ne li ñu waroon def yëpp ba nga xam te ne donc quand le niveau national décrète rek ñun dañuy suivre tout en sachant que nous bon on est couvert par le niveau niveau national parce que ñoom ñooy habilité doxe au mot d'ordre au niveau national bi ñuy respecté c'est pas uniquement la sous-section de Fatick c'est toutes les sous au niveau des des des des districts du Sénégal ànd ak ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy grève quoi. quatre-vingt-seize maanaam tey lay tey lay commencé ba ba vendredi dañuy def grève avec respect du service minimum loo tax sax ngeen fekk ma fii bon waaw service minimum bi la ñuy def c'est-à-dire on va prendre en charge les urgences yi nga xam te ne daal dossiers yi nga xam te ne mënuñu xaar parce que bëgguñu lor population bi moo tax ñu def ay service minimum en même temps ama amat lañ leneen luñ ci yokk on a fait une rétention des informations sanitaires maanaam lépp lu doonee bu ñu waroon jox ministère dañu dañ koy téye ba ba situation bii réglé wu appel bi ñuy lancé eh, état bi daal mooy vraiment ñu xam ne li ñuy demandé ñoom ñoo ko signé woon ak ñun ñoom ñoo waxoon ne ñoom dinañ def lii loolu ñu waxoon ne dañ ko def nag dañ ko respecté loolu kese la ñuy demandé donc si par exemple tous les autorités yi nekk Fatick ah, administrative ak locale yëpp nga xam ne mën nañ si def dara ñu def ci xam ne daal état bi moo signé woon ak ñun des contrats pour que vraiment mettre en œuvre ay activités yi euh, mettre en œuvre suñu revendication yi donc naka respecté loolu kese la ñuy demandé parce que ñun ak présentement ni nekkatuñu di di di di di di di négocier waat non non non parce que on avait déjà négocié ba ba mu des mise en œuvre bi donc mise en œuvre bi maanaam ñu appliquer ko appliquer appliquer ko daal moo des te loolu la ñu ñaan état bi mu appliquer ko ñu delluwaat ci liggéey bi daal loolu daal la ñu wax. waaw merci vraiment di di rafetlu vraiment seen seen initiative parce que lii day tax nit ñi xam ne exactement lan moo tax ñuy grève di di leen ñaanal seen télévision bi mu jëm kanam yéen ñi nga xam te yéen dañuy ci liggéey. ngeen am ci promotion yi ngeen bëgg loolu la félicitations merci. je m'appelle Alassane Ly je suis le secrétaire général de l'union régionale euh, du SUTSAS de Fatick. voilà merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir euh, communiquer de sensibiliser la population parce que vous êtes sans savoir que depuis quelque temps nous sommes en train en fait d'observer euh, un mouvement de grève. Dans un premier temps, on a les grèves de 48 heures, de 72 heures, et actuellement, on est euh, à 96 heures, les quatre jours de grève. Tout simplement ce que nous revendiquons, l'application des accords noonu seson cessons de courir derrière l'État sur nos dûs. Mais à chaque fois, l'État, on dirait que euh, il ne sent pas notre plateforme exactement. C'est vrai que y a quelque chose qui a été fait. Nous ne pas être nihilistes. quelque chose qui a été fait Mais dans les accords, ce n'est pas ce qui a été dit. On avait dit la généralisation de tous les agents, sans aucune exception. Mais ce qu'on vit actuellement, l'État veut nous diviser en donnant les uns et laisser les autres. Alors que nous tous, on était ensemble dans le combat, aussi bien les infirmiers les sages-femmes hein les chauffeurs les brancardiers même les balayeurs qui étaient fonctionnaires on était tous dans le combat donc aujourd'hui nous on ne peut pas imaginer qu'on veut satisfaire les autres et laisser les uns et laisser les autres ça serait injuste l'État a créé cette disparité qui risque de nous diviser et nous ça nous ne pouvons pas l'accepter voilà En fait, ce que nous réclamons, c'est inviter au gouvernement de respecter rapidement hein, ses engagements. Parce que c'est lui-même qui avait dit que c'était réaliste et réalisable. Nous aussi, on l'a cru. C'était la raison pour laquelle l'événement de 2018, on avait tous essayé. rien que pour le respect de notre institution. Nous avons beaucoup donné respect au président de la République. Et nous avons espéré que, qu'il allait régler notre problème. Nous, nous n'avons jamais souhaité, jamais souhaité revenir encore en grève. Parce qu'on nous avait proposé quelque chose qui était très clair et qu'on avait cru que cela c'est le respecter. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement On voit beaucoup de actuellement. Souvent, les uns ont reçu leur dû, les autres en moitié, alors que les autres n'ont rien reçu. C'est pourquoi nous invitons à l'État. Vraiment, dans toute indifférence, il faut que les gens encore se retrouvent sur une table et rapidement et essayer de régler le problème au lieu d'attendre jusqu'à là, jusqu'à ce que les choses s'enveniment. L'État ne doit pas accepter cela. Vraiment, j'invite à l'État de convoquer rapidement cette, euh, réunion en invitant tous les concernés et qu'on essaie de régler euh, le problème rapidement. Parce que c'est la population qui va en souffrir. Nous, ce pas notre souhait, mais c'est notre seule stratégie qu'on a. Menbis, on ne fait que prier pour euh, votre euh, radio, votre télévision. Parce que c'est Menbis qui nous a permis aujourd'hui d'être face à la population pour, euh, en fait, exposer, de sensibiliser la population pour qu'elle adhère à notre cause. Donc vraiment, nous vous remercions davantage. Voilà. Voilà, Mangi Babacar Saho. ñu gën maa xam ci mbay Sakho ma doon employé des collectivités territoriales fii ci commune yu Fatick. bon voilà parce que on a comme l'impression que euh, état day entêté wu at ñun maanaam euh, dañuy xëccoo quoi dëgër bopp beek yooyu noonu mel ni maanaam dañoo déggul li ñuy wax effectivement observé woon nañu troisième plan d'action. mais boobaak léegi euh, bon dafa mel ni on l'a classé quoi sans suite dégguñ ñu oo ñu à des négociations wala yu xeetoog yooyu quoi nga xam ne au moins dinañ mun a toog autour d'une table pour waxtaan ba jéem a retrouver wu autour de l'essentiel sëgëm nag amul euh, nous nous sommes dit que léegi dañuy observer un quatrième plan d'action parce que c'est à l'issue de l'évaluation quand même euh, de notre troisième plan d'action euh, ce vendredi passé Euh, on a décidé quand même à décréter un, un quatrième plan d'action avec la coalition And Gessem, euh, l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales, dans sa logique radicalisation, a décidé quand même un quatrième euh, plan d'action pour amener l'État à appliquer intégralement les accords sur les augmentations des salaires à tous les agents ayant droit et en soutien avec euh, euh, nos camarades en lutte, surtout à Ouressogi, Talibou Dabo et Mbour. Pour ne serait-ce que nous respecter nous au moins. Parce que nous pouvons yow madam yow mi nga xamee ne yaa may interviewé umpule woo ne agent municipal dafa sonn agent des collectivités territoriales daa sonn la preuve en est que képp koo xamee ne juddu na ci réew mi ñun on suit On te suit à la naissance, de ta naissance à la mort. Une fois que nga juddu gane àdduna les collectivités territoriales dañ lay commencer suivre maanaam bu ñu la tuddalee ba pare sa waajur day ñëw mairie ñu déclarer la ñu xam ne kat kii doomu réew mi la mu ngi juddu ba sangam waxtu sangam ci dëkk sangam kon commencé nañ la suivre nga commencé jël âge di màgg. ba atteindre âge boo xam ne da nga a dem petite section wala grande section ñu wutal la extrait moins de trois mois nga dem déposer ko ci école ba si bien que état mooy fayal ay doomam njàng mi mais boo ko déposé foofu ba pare ba war a def examen entrée en sixième pour nga mun a terminer cycle primaire dañ lay laajaat un extrait moins de trois mois ba léegi boo ñëwee au niveau en tout cas des collectivités territoriales yi nga xamee fa lañ la déclaré woon ñuy wutal la extrait de naissance moins de trois mois mais bu leen fàtte ne bu ñu demee également ba war a am carte d'identité nationale bi mandargal ne ñoom effectivement doomu réew mi lañ dañ leen di laajaat extrait moins de trois mois ba léegi nga del siwaat ci même institution boobu mu délivrer la extrait moins de trois mois bu ñu weesoo loolu nga am carte d'identité nationale bu fekkee ne da nga continuer pour poursuivre say études alhamdu mais boo demee nag boo war yore soxna euh, ba takk soxna ci farata yàlla ak sunnas Muhammad ngay liggéey dañ lay laaj kayit bu ñuy wax certificat de mariage parce que sa y va de ton intérêt bu ñu la laajee certificat de mariage ñu ngi koy établir fii ci mairie bi mais bien sûr combat bi day continuer xam nga kay ce qui me mal ce que je regrette dans tout cela mooy le fait que man ma doon le secretaire régional de la SNTS FC bokk ci xeex bi mais j'aurais bien aimé quand même bokk fi nga xamee ne fa la pouvoir de décision bi nekk ma fay siéger xam nga loolu lu muy mandargal mooy ñoom man mes supérieurs mes interlocuteurs directs ki se trouvent au niveau à, à l'échelon national ñoom si seen bopp wax naa leen ne lii jëmul kër guerre dafay saf mondial wala boog ñu bàyyi ko c'est vrai que nag euh, guerre boo gis mu ngi mujjee autour d'une table mais lii man sore été moi damay décréter benn un mois bu état réagirul ooyu ñu à des négociations ñu décréter indéterminé waxoon naa leen ko sama secrétaire national wax na ne euh, moom bu ñu toogee at moom ay naataangoom dina leen ko yeggee defe naa loolu sax bokk na ci li andi tey 96 heures yi parce que boo seetloo bu baax 48 heures lañ njëkk a décrété euh, décrété waat 48 heures doog a andi 72 heures bii 96 heures la mais billaay wallaay wa taala bu fekkonte ne dégal nañ ma un mois bi la ñuy dóor bu dëgër bu saf sap luñ ci góobee rek ñu gar léegi nag appel bi may lancé moom mooy euh, bu kenn ŋàññ employé des collectivités territoriales ñoom defuñ dara defuñ dara on a un ministre buñ confié euh, on a un ministère autant pour moi un département boo xam dañ ko confier un ministre ministre bi nag euh, moom moom mooy taxawal Macky Sall euh, dans les moments les plus difficiles ba tax na moom bu fekkente ne Macky Sall pour jot ko moom day xaw a jafe moom ci boppam il peut faire appel à non responsable toog ak ñoom waxtaan ak ñoom lañ fay arrêté comme procès verbal mu acheminé ko à kii de droit bu ko defee le président euh, de la république moom dina tranché parce que moom tamit quoi qu'on puisse dire nañ ko nangul ne am na ay valeur te valeur yooyu dara mënu ko sapp ci moom li may wax moom xam na ko bu baax te wallaay bu seetaanoon lii dina xam ne man li ma koy wax moom xam na ko valeur yooyu nekk ci moom nag mu inculqué ko ñu ñu inculqué ñu ko yooyu na jàpp ne lu ko raw moom moo nekk si moom waxuma ne day siisu de mais lu matt mu dog lu matt mu dog parce que day nekk ci dëggam nekk ci logique am kon na jàpp ne li nekk ci moom moom la bàyyi ci ñun wasalaam